di remercier bu baax a baax l'écran ci euh, gunge bi saa su nekk ci matinal bi Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu di la ziar di la masaw. Adja maa ngi lay fay. merci ci merci ci masaw waaw di la xaar rek. <laughs> ma ne ko di la masaw ah. ñu ngi yëglu ak euh, Mor mais ca wàll. tout le temps tout le temps maa ngi mais dafa am lu xew fii suñu wet. depuis hmm. depuis démb la. c'est ça. accident moom ci rond bi ñuy wax rond BO mooy mooy mooy booy dem ci xunt bi. rond point bi nekk foofu voilà exactement hmm. car boo xam ne dem na ba yéeg ci rond bi poteau électrique bi sax daf ko plier. Hmm. Hmm. muy gêner. mais ce qui est extraordinaire car bi mu ngi fa depuis démb. 18 heures fekk na ko fa. ba léegi sempiwuñu ko. jëlee ko fa xam lu ñuy def. et ça crée un de sécurité que ça pose fii c'est très fréquenté bon xanaa président boo waroon génn tey dem ci hôtel bu mag bi fii xanaa peut-être que dina tax ñu def ko en fait yii lañ a bàyyi xel parce que. pour citoyen lañ ko war a def. Mhm, fii tam yoon bi tamit bi ñuy ñëw benn tata man xaw ma waa da doon nelaw xaw ma. mu nga yéeg ca poto électrique. ba mbëkk ko mais yëpp su amee. c'est incroyable mais voilà mais li ci a a Euh, gis nga ko noonu corniche bi lampe yi comme ni nga ko waxee yu bees nañ fa def nee nañ 18 milliards nañ ci def. ay nit a ngi ñëw di ko yàq dara loolu doole. fekk loolu kii bi sax yàq na ko far poto bi plié na ko. mais en plus les dégâts que ça pour les. pour ah ouais, pour les parce que. Mhm. borom oto bi xëy na moom sawal comme ci daaneel bâtiment yi la rek. boo yàqee sa oto nga ne sax amaloo ko fa jëlee. Mhm. ok keesu mbuur mën na ko fa jëlee mais ñu lijjanti après nan lañ koy tegee ay daan parce que loolu waruñoo xaar moom mu mm-hmm. lu koy remorqué ba di ko fi jëlee parce que na talu ko sax tey mm-hmm. mais am na loo xam ne pouvoir public la moom moo ko war a def mm-hmm. pour defal ko nit ñi defal ko citoyens yi ba pare na door a lijjanti ay assurance lañ war a ko coppe teg fële libéré en prise bi nit ñi mën a dox seen ay soxla loolu waroo ci xaar chauffeur bi di ko def wala euh, euh, euh, a quelques minutes xew fële ca Mbour muy week-end bi mu nekk lu tiis lu doy waar benn sàmba boy bu ñëw faat ñaar jàpp ñetti nit euh, ci benn euh, càcc ci loolu nga bëgg a taxaw. waaw exactement. Mm. dafa am nag loo xam ne nii euh, su xewee moom mën nañu wax ni guléet la. Mm. paaray nit. mais ci. ni waaw ni mu demee ak lu mel ni ki fusillade daal ñëw teel teel. am cambriolage sax bu boo xam ne nii ça ça se mal nit dee ci mun nañu mun yàgg na fi am. Mm-hmm. mais ñëw intention damay jël jox loo ma mu ne ko teel ba pare ci dans sa fuite muy rey yeneen yi nit xëy na loolu ci suñu taarix ñu ngi koy soog a gis c'est première moo tax nag aussi saalin am ci comme film wax yu nekk mën na cee am mais bu pënd bi wuree peut-être la ñu war a analyser bu baax phénomène bi sa phénomène lu solitaire la du loo xam ne c'est difficile nga gàttandu ko hmm. nit ku jóg ak ngànnaayam c'est yombul non c' très difficile nga gàttandu ko. Mhm, c' est très difficile nit. Mhm. reer ba suur. wala añ ba suur. jóg dem rey nit. jóg yor ngànnaay yoo xam ne nëbb na ko. Mhm. dem dem pour defi jombe. c' est très difficile même ci pays yu am technologie yu xarañ yi. li am nag mooy. li ñuy limu li incident bi li nga xam ne nii grave na ci ci conséquence te a tiit mooy mbiri arme loolu moom mën nañu cee def dara. te dañu war a fexe ba arme circulation wu arme bu mu doon lu ñuy foowe traficu arm wala nit ñi di mën a am arme facilement loolu dañ ko war xeex dëggantaan parce que su commencé bëri rek ku nekk boo ne damay wut arme pour fagandiku musiba lay indi. Mm-hmm. parce que lu mel nii ñi mu dal li ñuy xalaat mooy leen rek su ma yoroon arme ma nit wala même dans sa fuite am ko ne bu ma yoroon arme te loolu c'est pas la solution un deuxièmement la trafic. arme ci ci am ko mu yomb problème la <coughs> parce que réew yi nga xam ne ni arme law na fa Brésil États-Unis wax nga waxi nopp waxaale wuñu ko mm-hmm. mais am na réew yoo xam ne tey circulation arme dem na ba pratiquement nit ñi ci conditions yi ñuy dundee nekkatul condition wu afia mën nga am àdduna ak lu ci biir mais sa dund du tëju foog nga génn foog nga nekk ci biti donc boo yaakaaree ni sécurité bi mooy tëju sa biir kër am vigile am gardien am lépp loo bëgg loolu du dund su sécurité insécurité bi ci biti la nekk. te mën na dal ku ne. parce que koo xam ne day dem dans sa fuite lay rey ay nit loolu mais ku mu fa fekk sa kaw lay dal. au mauvais endroit yi moom. vraiment luñ ci def war nañu ko wax xeeb ak di xeex surtout les îlots de de délinquance. fu nit mën a làqatu pour délai parce que arme yooyu ñi koy am ñi koy yor en général buñ ci jëfandikoo sax gis nga ci fa ñu koy denc sax peut-être du doon seen kër. Mhm. wala du doon du doon feneen ya ñuy jëflanteel aussi doy nit yoo xam ne nii ci société bi lañ nekk. mais yooyu lañ war a xeex. mais justement naka lañ ko mën a xeexee Abdoulaye ndaxte am na ay réew yoo xamante ne ñoo ñu ëpp jumtuwaay wax nga ko sànq États-Unis par exemple mais insécurité bi fa am ba léegi dafa mel ni ni euh, mënaguñu ko euh, mënaguñu ko canaliser euh, justement réew bu mel ni Sénégal te nga xamante ne ba léegi am na ay matuwaay yoo xam ne doyagul ci wàllu ressources humaines et cetera ma foofu circulation des armes dañ koy légaliser dans certains zones ah, xëy na moo ko war a wuteeg Sénégal. mais insécurité mais bon ici que a le marché noir. par ah. exemple mën nañ jënd ay euh, boobu waa ji boobu marché noir boobu dañu koy xeex dëggantaan parce que marché noir boobu arme duggalul fenn fu dul ay frontières. Mhm. frontières soit ku wàcc avion c'est rare c'est plus compliqué. nga nga duggee ko par nga duggee par voie aérienne mais trafic bi ci suñu frontières yu poreuses yi fa la arme arme yi defaree wuñ ko fii. Hmm. am na arme mun nañu fabriquer arme artisanale mais vraiment loolu defe naa ni taxul ñuy wax. parce que yooyu moom xam naa ne lu arme yoo xamante ni mën na def euh, njombal ay maq doom ak yooyu bon xewi na sax arm yi nit ñi di yor nii ay arme ay arme ay kali ay kalachnikov ak yooyu. c'est ça ñi doon song ay euh, fële sax mbaaw ak foofu mbuur ñoom ñëpp ay kii lañ yoroon ay armes automatiques. yu te te bu ñu fowee parce que daf ñuy dellu siwaat ci débat boo xam ne gis nga bu ñuy fowee débat wu arme loolu moo tax dans le Sénégal budget ministère de la défense dañ ko mos a may voteel ko ko bëgg ñoo xam sax armes yi mais da ngay dem ba benn moment bu dee da ngay gis ay armes di nekk ci nekk ci penc mi xamoo fu mu jóge ça pose question ci origine yi parce que trafic bi nag attention ça ne veut pas dire que trafic bitim réew rek la trafic mën na doon bien ci armes yi ñu soustraire ici ou xam nga am na pays boo xam ne amoon na fi casse benn caserne mhm. armes yu bëri disparaître loolu aussi day bokk ci liy favoriser circulation wu armes yi ñu gën cee fagandiku gën ko bàyyi xel traficophobie xam nga xam nga Abidjan am na benn moment daanaka jéematuñ ci woon dara parce que boo demee ba banque centrale nga kas ko dindi fa xaalis boo xam ne mm. xaalis bu weex tàllal lu woon sax ay faux mm. ay vrai faux billets la donc bu duggee ci marché bi ba pare rek jeex na lii tamit fexe ba circulation wu arme moom parce que nit ku yorul arme arme fetal xëy na moo gën a neex a neutraliser euh, que koo xam ne fetal la yor fetal kenn du xeex ak moom. Hmm. gis nga ci témoignage am na waaye buy wax c'est vrai dafa wax sur le show fii ci télé bi bi ñu ko interroger. Hmm. ñu ne ko lan nga def mu ne saa waay lan lan nga bëgg ma def ak yor ngànnaay damaa hmm. daw. c'est ça waaw xam nga waxu waxu waxu ci tàng tàng bi wax boobu dafa yenu maanaa saa yi lan nga bëgg ma def ci ku yor ci ku yor arme damaa daw parce que arme kenn du xeex moom ci jàkkaarloo mën na def dégâts yoo mais encore une fois arme phénomène lu solitaire muy ci lii muy ci terrorisme c'est très difficile li ci ëpp solo mooy fexe bu xewee mu bañ a rëcc ça c'est très important parce que kii defoon li ba pare rëcc. rëcc moom sa musiba la askan bi dañu naroon dem songu police bi pour régler les il a fallu même que ñu exfiltrer ko jëlee ko Mbour parce que Mbour les gens voulaient coûte que coûte lui faire la fête. ça peut se comprendre. Ah, mhm. mais ça, peut mhm. se justifier. la police jàmbaar lañu parce que aussi tey la leen sax seen bakkan. Mhm. parce que ñoom image yi gis. nit ñi àndatuñu woon ak seen sago les gens n'en voulaient pas la police mm. Mm. encore une fois mais conséquences yi mënoon na dal ci kaw police parce que image yi ñu gis c'était très violent sur le car ah oui, les gens étaient choqués yi ñu am benn maîtrise ñoom ñu am benn maîtrise ba nga xamante ne ci foule bi amul euh, certainement ku ci gaañu wala fexe nañu ba bu waaji rayuñu ko chaque jàmbaar lañu mm. def nañu li nga xam ne ni moom la ñuy xaar ci ñoom cent froid parce que am na lu lu moins moins dangereux yi xëy na nit perdre cent francs def dégâts. Hmm. te commissariat bi soriwul. Euh, centre ville. alors am na yeneen nag yoo xam ne da nga ko ciy dégg. mais événement yu mel nii def naa du ci la ñuy décider li nga xam ne ni moom la ñu war a def parce que l'émotion c'est jamais la meilleure des alliés. surtout mer de xel moom dafa xaw a jafe. te te li ngay wax rek waa ji nee na ah. Mbàkke la jëndee arme bi cent cinquante mille la ko jëndee. xam nga mais parce que zone boobu aussi gars yi du nëbbu jaay arme da ngay dem naan ginaar ak i nenam. ginaar ak i nenam am loolu c'est connu de tous que ni dañuy dem ci marché bi naan ginaar ak i nenam mooy fetal. ak ak ay bal mais gis nga loolu voilà loolu fa mu nekk. Mhm. fa mu nekk fa dañ ko war a jëlee. maanaam dañoo war a remonter enquête bi remonter ba xam kan moo ko jaay arme bi. c'est ça arme yooyu moom laay wax arme yooyu Adja dafa am fu muy jógee. Mhm. xam nga zone bu ñu nee zone de trafic bi fii la. bu ñu ne woon zone de trafic bi ab banlieue la nga xam ne peut-être c'est paumé c'est c'est la promiscuité ak yooyu dafa am fu mu jógee ba pare. fa muy jógee la ñuy couper ba pare fa muy jógee nag ñaar la mën na doon bitim réew tout comme mën na doon ci ay lu fi nekk loolu lu jar a bàyyi xel la. Mhm. parce que souvent dañu ñun tàmm lu xew rek ñu jiñ ko bitim réew xoolal communiqué du procureur mën nañ ci taxaw 30 secondes peut-être. xam nga xam nga procureur yi léegi ñu ngi commencé di wax bu dara xewee ñu def un communiqué c'est très bien il faut encourager ça mais aussi ñoom waruñu réagir à l'émotion euh, defe naa ni communiqué bi mënoon na ñàkk a bañ egg ci tudd nationalité dëggantaan nit mën na wax rek de nationalité parce que loolu moo gën a yenu maanaa yem ci de nationalité étrangère ba fu enquête bi demagum ñu wax ko parce que xam nga lu tax. Mhm. xam nga xam nga waaw stigmatisation et puis nee na guinéen la. Mhm. mais peut-être que ça ne renseigne absolument rien. que mu nekk guinéen bu fekkee ni waaja depuis Mathusalem. mu ngi dëkk Sénégal nekk ak ñun yor jikko yaroo fi màggee fi amatul sax sens. di wax ni mbokki fële la. parce que daf leen di stigmatiser te jaru ko. lépp loo xam ne day stigmatiser nit. lu ñu war a moytu la et à ce stade là de l'enquête chaque jour njoom lay am fii Ablaye te ñi koy def du ñu du ñu ay étranger ay Sénégal Sénégal gi la ñu dëkk yaa ngi fàttaliku euh, transfert d'argent bi amoon fële soxna sañ fa fekk rey ko et cetera et c'est le même modus operandi mooy mooy li nga doon wax xaalis laa bëgg xaalis voilà xaalis laa bëgg parfois kii témoignage yi nga dégg ci ñu jóge ci Thiès ci ñi dëkk ak moom considéré wuñu ko comme ku bokk comme ku xeetoo feneen mm-hmm. mook ñu ma dëkk xamante nañ donc peut-être que à ce niveau là jaruloon mu ci egg à ce niveau là soxlawul woon d'autant que ñun bon am na yoo xam ne yeneen yeneen i communauté bi mun nañu ko bañ a gérer mais ñun foog ñu gérer ko. Mhm. donc à ce stade là mënoon nañ ci bañ parce que li muy jur rek mooy joxoñ joxoñ ay nit. Mhm. joxoñ ñeneen ñoo xamante ni jotewuñ ci dara defuñu dara te vraiment ñoo ko njëkk a condamné xëy na soxnaam si ñuy wax sax. dafa traumatiser lii même booy dund ak nit ki mënuloo d'accord ci moom xàmmee woo ko parce que xàmmeewuloo ko lii yaakaarewuloo ko mm. phénomène lu solitaire la maintenant daf ñuy delloo si ci lu ñu musoon a wax ci incident bu grave bu fi amoon ci psychologie wu nit ñi. mais loolu c'est tout un travail évidemment il a pas de recette scientifique pour dire que profil psychologique yu nit kii. lii la war nañ ko mën a teel a seppi ci société bi ki nga xam ne profil psychologique mën na ko yóbbu ci mu def njombe c'est très difficile à détecter. parfois mm-hmm. après coup rek la koy mën a xam. Mm-hmm. mais encore une fois li ci ëpp importance mooy. fexe ba. nit ki du rëcc ñu moytu aussi salit bi. Mm-hmm. dégg naa ci rapidement Mm. après incident bi ku nekk di wax ni marché bi dafa war commissariat gare routière dafa commissariat non. mais commissariat fi nekk soriwul soriwul soriwul marché bi et puis on pas un commissariat parce que. Euh, mm-hmm. rey am na ci marché bi ñu defal marché bi commissariat rey am na ci gaaru ceer bi ñu defal euh, commissariat bi ci gaaru ceer bi je pense que mënoo sénégalais bu nekk nga wut policier bu loolu yëpp ñu bàyyi ko xel mais c'est l'émotion qui fait ça mm-hmm. ñu bàyyi ko xel loolu d'accord merci mm, beaucoup merci beaucoup Abdoulaye Cissé ci euh, jàngat bi léegi léegi dañuy jàll ci ponk bu mujj ci info matin muy sunu gan ñu dalal ko